ñu ci yeen ñi ñep lool lañu bëgg mandargal tay bi réew mi moy lan moy jub jubal ak jubanti président Diomaye fay dafa genn nek candidat ci premier meeting am yi mu ne ag jub jubal ak jubanti mbokk yi li ñu dal ci réew mi yëpp tekkiwul ni ñi fi newoon amuñu compétence de ñu ci bëri ci ñoom am nañ compétence école yi ñu jàngee ñun ñëpp la ñu jàngee waaye xam ngeen lu leen manqué jub jub moo leen manqué réew kenn mënu koo tabax ci jubadi lii ma leen di waaj a wax amul lu ma leen ci waxuloon defe naa balaa may ñëw amaana régie bi am na lu mu ci jukki ci loo xam ne lu ñu xam na ba pare ci li nga xam ne mooy xew tey ngeen gisal ko seen bopp ñaata yoon laa taxaw assemblée nationale ne leen da ngeen di tappale li ngeen wax amut bor bi li ngeen ci wax amut lempo gi li ngeen ci wax amut déficit bi li ngeen ci wax amut leneen ak leneen ñaata yoon laa ko wax biir assemblée nationale 2017 2018 2019 ñaata yoon laa ko wax qui ne comprend rien des enjeux. Quand je viens à l'Assemblée, je viens pour m'adresser au peuple sénégalais à travers la couverture médiatique, mais je viens également pour m'adresser au gouvernement représenté par un ministre. Et l'air est moins polluant quand nous avons une salle dépouillée de cette majorité qui ne comprend rien aux enjeux. Monsieur le ministre, les raisons que vous avez avancées pour euh, justifier votre loi de finances rectificative sont fallacieuses. Vous nous dites, vous invoquez d'abord la conjoncture internationale. Nous avons dit depuis des années que votre croissance est conjoncturelle et non structurelle et qu'il aurait suffi d'une petite hausse du prix du baril pour que vous rendiez compte. Et c'est ce qui vous rattrape. Mais rappelez-vous qu'il y a six mois, en décembre, les 17 et 18 décembre 2018, vous étiez revenu de Paris en nous disant que vous aviez collecté 7 356 milliards au lieu de 2 850 que vous recherchiez. Et aujourd'hui, vous nous dites la conjoncture internationale incertaine, euh, euh, commandant d'observer une certaine prudence dans la mobilisation de l'investissement public pour financer les emplois. En réalité, vous avez perdu le crédit et la confiance des bailleurs à cause de deux choses d'abord l'endettement chronique Nous avons à 2012 Nous avons à 2741 milliards d'endettement soit 10 40 du PIB aujourd'hui dépassant 6 milliards soit 62 du PIB Si ci boolee performance économique c'est surfait ensuite les mauvais choix d'investissement j'y reviendrai la deuxième chose c'est la vraie fausse réorganisation gouvernementale vous savez il suffit de quelques écritures par voie réglementaire pour faire les transferts de crédit. Ça ne peut pas justifier euh, une baisse, comme vous le dites. Et je suis très heureux de voir que vous confirmez. Il y a deux semaines, j'ai fait une conférence presse pour annoncer un gap de 100 milliards sur les recettes fiscales. Vous avez fait un long communiqué pour démentir. Aujourd'hui, vous mettez dans votre loi de finances une réduction de 100 milliards sur les recettes fiscales. Mais c'est extraordinaire. Et vous projetez que ça peut dépasser les 300 et quelques milliards si on ne prend pas des mesures correctives Mesure que vous ne prendrez pas à cause de la politisation effective de l'administration fiscale qui ne travaille pas. Merci la régie. Amoul lu fi bees waaye ñàkk jub wax ko ci assemblée nationale Tapale, ak naxaate ak Ndeng, mënul defar Ap, réew loolu moo ñu situation bi ba ñu yegsee ci nguur gi premier conseil des ministres le président Bassirou Diomaye Faye

xam nga loolu mooy dëng di ak dëng ak ak tappale li xew ci réew mi mooy régime président Macky Sall bi muy jóge fii senegal nee na bàyyi na fi bor boo xam ne téeméer boo jël juróom-ñett fukk juróom-ñaar fukk ak ñett la boo ko nattee ci PIB bi boobu jamono bor bu bari boo xam ne jëloon na ko ma ko dem làq nëbb ko partenaire muy FMI muy banque mondiale muy kenn ak keneen waaye ko sénégalais ba tey gis nañ ni bor points ne yobé na Sénégal ñu dégrader ko notation parce que nénañu lañu la def dafa andul ak gu doy gu

motax ñu pour assemblée nationale pour am faw rek waxuma ngeen assemblée de man suñu jox assemblée ñu naan suñu majorité ñaari député ñetti député la ba assemblée il faut ñu am une majorité écrasante assemblée rôle bi assemblée wara jouer ci il faut que nous jox le président Bassirou Diomaye Faye gannaaw biñ ko falé premier tour ci opposant lu musul am à 54 pour cent mënuñu def lénen nous jox ko les moyens mu jox une majorité écrasante à l'Assemblée nationale le 17 novembre mais crise est gis opportunité là ñun exercice de vérité bi ñu def aduna yépp ko saluer té mun dina renforcer la crédibilité du Sénégal sur l'international et au niveau du pays dégna Amadou Ba nga xamné un ci pire yi la bok ndax nek na ministre des finances neub chiffres yi premier ministre neub chiffres yi dégg démb mu nan gouvernement un gouvernement ne doit pas crier au scandale kon moom d'accord na ni scandale amna? na d'accord na ni scandale amna? dañu wax ni dañu wax ni ku aju bëggul ku teen ku aju bëggul ku teen Waye ma koy jox ben assurance rek Moy li responsabilité ci mbir mi ak kenen ak keneen lii seen responsabilité faaw rek ñu layoo kook askanu Sénégal ko ak man de askanu Sénégal parce que ñew jalgati réew mi def naka sudul noonu pour mun tok ci ay milliards ci ay fonctionnaires simple ba pare japp ni mën nga kay mujjé mujjee da fay yomb Sénégal amna ño ñoo waru ne wax ci politique amatuñu droit wax ci politique su doon yenn réew yi dañu waroon am déchéance civique parce que wóoruñu ñu leen di dénk ñooñu dénk leen quartier sax wóorul wax ma laa nga leen dénk ab réew Sénégal am na ñoo xam ne waratuñu wax ci politique te lii benn affaire la mais ci fan yi di ñëw bu ñu paree ba installé di ngeen xam la def ci suuf si di ngeen ko xam fii di aéroport bii rek aéroport bii rek di kenn koo xam ne benn tiit rek la mën a fëggee dënnam mooy maay géewlu président nga am ci un hectare deux hectares ci l'aéroport bi dagg ay suuf su jeex di jaayaat yor say milliards toog foo di est-ce que loolu dañ koy bàyyi mu romb ci sénégalais d'accord nañ ñu ko parce que dañ koy teg ci ay jaratul kenn di xex ngir dara parce que pratique yoy motax ndaw ñi waron am liguey amuñu liguey ah. waaye waxuñu ko pour jooytu dama leen bëgg a wax ni on a notre